Baye Zane non c'est mm, euh, ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay moi c'est Abdou Saliou présentateur à Dakar Buzz euh, tey waxtaan bi li ko lu ñu woote mooy euh, arena bi nga war a jëm Adidas Arena bu Paris le 7 décembre. tey ñu gis ni événement bu nekk Wally tëgg na ko yàgg na ko def mais pourquoi mu choisir Adidas Arena ak billets yi nga xamante ni ñu ngi wax cherté des billets ñu bari ne nañ billets yi dafa cher est-ce que. yaa ngi bàyyi xel ñi nga xamante ni ñoo nekk foofu ak ñi war a jóge fii dem euh, pour naka la ñuy def ba biir yi accessible ci ñoom euh, qu'est-ce que Wally a pour la presse en ligne ñi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi est-ce que dafay dafay am ñu muy yóbbaale wala daf leen fi bàyyi comme ni mu ko faral di defee saa su nekk. waaw maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax di nuyu sa collègue yëpp yu fii daje di la xamal ni euh, am na contentement gis leen tey fii. Adidas naa le choix dafa nekk rek salle boo xamante ni dafa mythique tubaab bi defar ko mu lu bees ma bëggoon bokk ci ñi njëkk joué yàlla dogal mu antu mm. donc moo waral ma jël ko et muy salle boo xamante ne accessible na pour la diaspora les africains <coughs> et je pense que euh, suñu borom moo nangu rek yàggoon naa bëgg wut yeneen salle mais ku ne xam na nii am par yi dafa jafe donc euh, su doon sama sago yu arena lañ jël te maa ngi koy waajal bu soobee yàlla heure bu ma amee date yu arena xam ni dama koy coppati hmm? waaw dama koy coppati waaw dama koy coppati donc Adidas arena bi dafa dama postu dama postulé yàlla nangu ma bokk ci ñu fay njëkk jouer donc bi occasion bi présenté boo xoolee man du may dem France décembre décembre yëpp fii laay toog du dem Europe décembre donc date décembre bi 7 décembre moo ci amoon rek ma naaw ci donc noonu la demee euh, beneen question bi nga ne. beneen question bi. Euh, hmm? billets yu cher yi. waaw billets yu cher yi c'est pas mon choix parce que moi je par pas le promoteur dégg la euh, promoteur bi suma xarit la on est une famille. mais bon moom moo xam événement bi tu say salle yi dafa cher trop te salle bi nekkul salle boo xamante ni salle bu accessible la donc euh, jotoon ci dafa métti woon boobu moom moo xam ni mu def ba am salle bi d'accord alors France ku ne xam na taxi yi ni muy demee ak yeneen ak yeneen loolu moom xam naa moom question bi moom moo ci gën a mën a adéquat pour euh, tontu ci quoi. Mm-hmm. mais bon Wally jar na lépp loolu. waaw te Sénégalais yi dinañ ñëw diaspora bi dinañ ñëw ñëpp dinañ ñëw. xam ni buñ ñëwee lu fa waay def sa un euro doo ko rëccu waaw. waaw ñu gis ni promoteurs yu ci bari bu ñuy dem euh, la fois passée yenn événement yi. Mhm. Euh, jël nañ euh, quelques organes de la presse en ligne. Mhm. yóbbaale leen est-ce que Wally mi ngi waaj loolu pour yóbbaale la presse en ligne. waaw ça dépend ça dépend alors loolu dina bàyyi Baye Zal mu contacter promoteur bi mu xool ko parce que nag man moom wax dëgg yàlla. ku ne xam ne ni actuellement rendez-vous yi ambassade métti na métti boo xamante ne te bugguma ju demande service lu bare defe naa bi ma njëkkee demande service bastion la waaw musuma demander service pour sama bopp donc bi ma njëkkee demande service bastion la donc bugguma ji demande service lu bare lu lu lu sama nature ah te rendez-vous yi métti na métti boo xamante ni dana waar donc promote euh, organe de presse bu ci am Euh, ñu am visa acheter les billets c'est pas un problème ah euh, euh, commodo yi hôtel yi c'est pas un problème mais tu sais actuellement les rendez-vous sont tellement compliqués à prendre donc mënuma ci jël benn engagement en tant chanteur parce que actuellement am naa leneen lu ma doy que dem ji xam nga topp ci demande de service ak yooyu vraiment sérieusement alors je vais demander à Bazal de contacter le promoteur s'il peut faire quelque chose pour ça. bonsoir à tout le monde bonsoir euh, papa maa ngi nuyu di la ziar. maa ngi lay ziar Ngom. avant tout mooy jëm ci questionnaire yi je te remercier. Hmm. parce que euh, gis naa mbëggeel bi nga am envers ma personne. ci ci visibilité am gis nañ. futur par benn. waaw da nga gis futur yi nga defar ñoom nga def futur yëpp yëpp futur donc kan projet bi ak kan moo nekk ci ginnaaw projet boobu noonu. Euh, li tax ma def featuring yi yëg-yëg la li ma la wax aussi lu dëggu ci man man maa ko yëg te bu kenn jàpp ni ñoom ñoo ciy gañe man dama ciy gañe parce que artiste lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw am na ku koy déglu am na ku mu àndal artiste lu mu ndaw ndaw ndaw mën na la yokk donc win-win la rek rus naa nag dem ba benn fenn fii ci musique te ni nga xamante ni su may rakk lañ ma bokk ak ñoom réew mi tàllalu ma leen loxo waaw lu ma mës lu ma mës a défendre la donc man waruma toog ba mu dal ma ci beneen aspect bi mais aspect bi ci topp mooy man kese mënuma yóbbu musique bi ak lu ma ko bëgg bëgg bëgg ma moom moo ko moom moo ko man kese la musique sénégalaise ne m'appartient pas donc man kese mënuma ko yóbbu donc dañuy soxla ay branche te ñi fi nekk ñoom ñi ma woowee noonu ñëpp ku ci nekk artiste nga capable nga def du bon boulot lu ne donc choix la rek ma man maa ko yëg def ko te bi ma ñëwee it ñoom it vraiment ubbi nañ ma seeni i buntu euh, euh, def nañ li ci war man kay maa leen war a gërëm parce que ñoom ñoo ma apporter man apporter lu ma leen dara waaw man maa leen war a gërëm waaw. d' accord euh, beneen bi si des ñu dama seetlu ni waa lépp lu ñuy def ci événement dina fexe ba créer benn marketing boo xam ne dañuy lié ak événement boobu. récemment gis nañ la nga assisté benn inauguration suñu grand Pape Cheikh Diallo. nga jënd fa une la buy lié wu ak le non Wally dafa dem ci Papa Cheikh parce que Papa Cheikh moo ko ko ci Pape Cheikh Diallo depuis amee début wax na leen man maay seul artiste bi ko jaral mu summeeku ànd ak ñoom Zalmané Adama béy bi nga xamante ni mooy jëkkëru Zeyna Ndour tey mhm. di xeex Pape Cheikh c'est walli wali alors tey bu fi Chanel ñëwoon tey wala Louis Vuitton ngeen baal ma ci publicité bi ñëw di défendre benn cause di cause noble di jaay benn boucle d'oreille leer na ma sénégalais yi dina am ñu fëgg seen poche jënd ko lépp 7 millions waa ñun dañu am lu gën a rëy Pape Cheikh hmm. amuñu animateur bu gën a rëy Pape Cheikh alors muy defendre cause bu noble boobu nga xamante ni man sama askan minimum six personnes yoo xamante ni loolu moo leen rey gannaaw yàlla ci ci seen seen seen seen dem seen génn àdduna ci loolu la jaar muy cancer dama ci war a def suma ko du lunette yi non non non parce que lii bi ma defee sama cause ba pare. jënd naa ay lunettes yoo xamante ni prix normal laa ko jëndee mais cause bi laa jënd waaw c'est pas c'est pas lunette ci cause bi laa la laa def dama def sama contribution rek waaw ñun Pape a ñu gënal Louis Vuitton Pape a ñu gënal Chanel tey euh, Nomad Blue bi moo ma gënal Louis Vuitton moo ma a Chanel moo ma a leneen je préfère su may takkaat sax may takk Nomad Blue euh, ñu souhaité woon la àndoon ak yow bi ngay génnee album di wàcc am disque d'or sénégalais yëpp <coughs> en masse ànd ak yow di la ko ñaanal ba pare di la support gis nañ ci communication bi ñu ci def bu bëree bëri rawatina sa cellule communication bi donc après le set bii nii euh, est-ce que mën nañ xaar waa li nekkaat ci même relance boobu noonu pour jot li nga xam ne moom moo di disque d'or parce que non pas yow mais les sénégalais ba léegi se pose question boobu noonu mooy kañ la ñuy jot suñu disque d'or bi ñuy waa li balaa ko sekk jubal waaw euh, dinaa leen ko indil bu soobee yàlla naa lañ koy indil li ñuy wax musique ay bunt la da ngay fëgg rek album ci album la ñu yaakaar disque d'or mais disque d'or single sax mën na koy indi jaam day nangu ndogal ok album boo liggéey ci quatre ans ba mu àgg cinquième année tubaab wóolu la jël xaalisam jox la signé la contrat ngay liggéey album bi fitiriñu teg sa baay dégloo ko sax génn àdduna di dox di dox ba nga war a génn album bi jour bi nga war a génn album bi bu ñu ñëwee suba la sa mag bu jigéen wàññeeku maanaam promotion doxatoo ko nga stop léegi lépp jour bi nga nga xamante ni moom la ñuy denc sa sa mag la album bi génn tubaab bi xamul caaxaan génn na ko d'accord waxoo ci waxu album bi. huit jours après huit jours après album bi maanaam huitième jour suma bu jigéen suma yaay daanu feebar alors bi mu daanoo feebar ñu gàddu yóbbu France may def navette Dakar Paris di ko booleeg di ko liggéey kooku tam promotion album bi même si je faisais semblant quelques mois après même pas deux mois et quelques sama yaay wàññeeku adduma ah, du ma ndogal te xam ni. nii la war a demee sama yoon gudd na single mën na ko indi beneen album mën na ko indi mais bu dee sérieusement parlant li waroon def ci promotion album bi ak ni ñu ko waroon toppee yàlla may ñëw temps boobu ñu def ko ay borom xel nag laay waxal ah noonu la demee.